téléphone bi c'est le 77 219 99 99 le 77 219 99 99 Serigne Daouda Seck sa coono daal di jeex. asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar mais di nuyu askanu làmb yëpp yëpp yëpp maanaam buñ ko waxee mooy kenn sa bopp moom mooy Bira Sène maa ngi koy nuyu parce que moom moo jiite làmb ji mais di nuyu tamit mbër yi les ménagers les amateurs supporters yi képp kuy dund làmb daal wala sénégalais foo mën a nekk ñu ngi lay ziar la ñaanal jàmm leen wax na nag coow li bëri na fi mu nekk nii xulle ci combat suba bi samedi 19 war a dox ci diggante Tyson bu Ndaayaan di doomu pikin ba tey ak ki nga xam ne ni moom mooy Franc bu Parcelles Mbooloo wala boog Franc bu Jàmbaar Wrestling Academy war wara dox ci diggante Mama Lamine bu Lamsar ak Garga bu euh, fa nga xam ne moom mooy parcelle coow li nag bëri na ci làmb ji du am làmb ji du am làmb ji bu soobee suñu borom moom dana am Mama Lamine nag kaam moom na leer nañ moom lañ ne moom moo blessé loolu la wax xëy na nag loolu bu ko waxee ba ko moom ak Garga fomb ah dina justifier moom lam moo tax wala boog dina ko indil ñi nga xam ne ñoom ñoo yore lamb ji parce que lu mu ci mën a doon rek yaakaar naa ne am na fu muy tege parce que làmb moom bu toll ba fii nag benn combat maanaam combat yàqu metti na si promoteur bi waaye yaakaar naa ne metti na ci ci ci ñaari mbër yi parce que pour man mbër bu jël avance ay weer la nga bëggoon mooy bëre ko mu wàcc la nga dem wuti leneen parce que làmb noonu lay tëddee waaye bon du tere nag ñun ñu ngi seen see tey père Babou ngi nii taxaw di yore garga moom il fallait que ñu laaj ko parce que moom mbërëm defe naa ne moom euh, xam naa ne bu fekkente ne combat bi dafa yàqu tamit xam naa jógut ci mbërëm moom ci li ma yaakaar parce que gargade daa mel ni moom ba fii ñu waxee ni moom dafa pare woon pour bëri suba père maa ngi lay ziar. yal na ba am nga jaam. sant sëñ Basir bu wér. lamb ji bëri woon na coow dina am ak du am dina am ak du am surtout Mama Lamine gargade nee nañ Mama Lamine dafa blessé loolu la ñu mujj am fii comme ay information loolu bi mu amee nga dégg ko yow mi yore gargade noo dunde loolu. waaw man loolu yàgg naa ko dund gaa euh, combat yu bëree bëree bëri dund naa ko ci mais bii dafa dafa doy waar parce que comme accès gul woon CNG amagu régularisé guñ ko woon kaa la neex rek lay doon ah du nekkatul kaa for suma ser parce que bu accès woon CNG danañu mën a xam ni. mbër mi gaañu gaañu bi lii la gaañoo wala ci condition yii la gaañu dafa gaañu nangam ak i nangam wala ka force majeure la nangam ak i nangam mais fii mu ne nii kaa loraate la daal dafa lor na promoteur bi lor na mbër meneen mi war a bëri doy na waar lool bu fekkee dafa feebar yàlla na muy wéral yàlla na ko sunu borom wéral dee dafa feebar. mais est ce que ma laaj la leen est ce que tey en tant que père Babou ne nga lii dund nga ko te yaakaar naa làmb liñ la ci war a net li bëriwul macha allah yàlla nga gudd gën a gudd fan mbër même bu fekkente ne làmb ji des na ay quelque jour wala ay quelques heures pour mu egg si di xam nga ne dina fa yegg si wala wala boog nga dégg ne du fa yegg si est-ce que mbër mi dafa am droit kon moom euh, taxaw comme yegg siwul ci CNG rek mu ut raccourci wala nangam sangam. moo xam nga gaañu la boo xam ne gaañu da CNG du ko àtte bu doon tey nii dafa euh, combat bi dafa accès woon CNG dañ koy yebal ci docteuru CNG bi tey bu fa jógee an delloo si kayit yi fii bu andee kayit yi danañu comme li ma la wax ci départ bi danañu wax ni lii moo ko gaañ gaañu na ci e, tànk wala gaañu na ci épaule wala gaañu na ci bopp wala nangam ak nangam mais fii mu ne gaañu na rek la ñu mën a wax kenn comprendre lul xaj na promoteur bi war na mën a comprendre wala manager am mais euh, nun mënuñu comprendre dara lu may dégg-dégg dégg-dégg nag euh, mënoo ci comprendre lu bari daal dafa xaw a doy waar lool bu dee dafa feebar yàlla na ko sunu borom wéral bañ a di ñëw pour dugg ci làmb mënoon na investir leneen ak nu mu munti demee rek li mu safaa kànj doon wax man damay jël sama cent franc jël sama fukki dërëm mu mag jël sama juróom-benn dajale pour dim tëgg làmb ana ki jéemul nag koo xam ne day toog fee rek di fa xasal ak a yàq ak sabote dafa ñaaw lu war a mën a ñàkk la ay doomu aadama yi démb vocal yi fu nekk la doon jógee làmb ji fomm nañ ko làmb ji fomm nañ ko làmb ji kañ defe naa buy fomm ba ci blessure euh, Mama Lamine bii ñuy wax du nii la war a génnee moom moo war a génnee kayit ne dama gaañoo mais nit ñee koy génne mais est-ce que war na est-ce que régulariser ngeen ba moom mu war a mën a génne kayit ne ne dafa gaañ. non mais. administrativement tamit quoi. non jotuñu woon a régulariser. jotuñu mais làmb famille la. donc que di nga ko mën a forcer mu jox la kayit. non non mais mun mun mun dafa war a génnee kayit ñëw ne man kat dama blessé parce que ba muy ba muy ba muy dem kër promoteur bi mu koy jox xaalis da ko jox kayit te pourtant wu wuñu muy dem mu koy jox kayit. te làmb famille la Mama Lamine ku baax la Max Mbergane di suñu idole di suñu kilifa man moo ma woo tey ne ma booy bi dafa gaañu ñu ngi koy ñaanal mu jóg ak jàmm dellu si ndax xamee wuñ ko caaxaan ndax moo ñu yar di suñu mbokku taalibe di di suñu grand bu baax ñuy roy ci moom kon dañuy masta masaw Mama Lamine rek mais ñi nga xamante ne ñooy génn yenn information yi négatif yi nañ bàyyi loolu loolu rafetul loolu rafetul Babacar. mais li nga wax noonu am na solo mais dama yaakaar ne tamit boo tëggee làmb bañ ne suba la làmb ji wala ginnaaw suba la làmb ji te régularisé woo làmb ja tamit est ce que yow promoteur bi amoo faute. pour te dire Jax régularisé na un mois am na combat boo xam ne yàqu na wut nañ ko ko remplacer mais ñoom ñu ngi soog a indi kayit tey vendredi heure bii mbër maa ngi soog a indi kayit làmb compréhension rek la bu doon ko def ñu dumala rek du sotti. c'est ku def ñu duma la ku juum ñu duma la kon làmb du am. Ah. CNG ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñoom dañuy jàppale làmb dañuy taxaw làmb di defar làmb parce que xam nañ li dëkk bi nekk xam nañ li ci dëkk bi te sauver làmb rek moo leen fi bàyyi ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm bu baax di leen sant si seen compréhension seen tolérance. suba moom Mama Lamine Garga de moo dul bokk ci journée bi mais Franc Tyson dañuy bëre Baye Mandione Junior yëpp bu xoolal Ibou borom xoolal xoolal xoolal Ibou borom Kër Mbay Fall xoolal Maadi borom Zap ñooñu buñ jegee xajuñ fii. nañ ñaan yàlla rek yàlla noppi na démb tey soog ñëw yal yàlla moo tali yéene daal Babacar lañ. ko bee ci des nu ngeen di def ak moom. combat bi nañ ñaan yàlla mbër mi tane ak jàmm ñu wut dat tëggu ko ibo Mar dèjà dal nañu ci moustique ak ak kii noiro noiro daaxee dafa gaañu loolu spécial la nga jël garga de Mama Lamine def ko grand combat am na am na beneen booy boo xam ne loxo la am ñu koy wax euh, jéngal ak puy de déjà journée ngi noonu ñu ngi te ñu jubluwaat ci liggéey ci journée boobu. si mais est ce que bu keroogee manager wu Garga du leen laajat xaalis. non non du laaj xaalis Max Talibé la du laaj xaalis. xam nga manager wu Garga 2 du laaj xaalis ndax cas force majeure la tey ensuite yàgg na fi am. manager wu Garga 2 bi am ma seen di gaañu ñu ñu koy mu ñëw di ñu koy informer ci Modou Lo wu ñu xaalis <laughs> ñoo nekkoon am na fi amati fi. kii moo yore Tyson 2 defe naa ne muy Ibnu Diop bu yaakaar naa ne ku ne dégg na turam ca Mouhamed Ndaw Tyson ba ci Eumeu Sène ba ci Tyson numéro 2 ak yeneen mbëru Pikine père maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay. ba am nga jàmm. alhamdulilah. yow daa mel ni pare nga de sa mbër daa mel ni pare na pour bëri suba muy Tyson 2. Ah, waaw d'ailleurs ba mu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ci samay waajur gërëm yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaw combat Tyson 2 bi nag bi nga ma laaj moo ko franc ah combat la boo xam ne ñaari xale yuy dem la te ñaari xale yuy dem nag xam nga buñ dajee combat ba dafa war a neex te incha allah daañu neex ah waaw ñun préparé nañ ko comme nu ñu daan préparé combat yëpp ah combat la boo xam ne vraiment amul lenn luñ ciy négligé. kon daal suba pare ngeen yéen seen diggante ak franc. ah waaw pare nañu moom kay bu doon léegi incha allah ñu bëri léegi. bu doon léegi léegi sax maa la wax léegi bu doon léegi léegi sax. kon yàkkamti ngeen samedi suba ji daal. ah ñu ngi ñaan yàlla daal àgg ceeg jàmm ak uh-huh. waaw yàlla defal nu wér defal suñu adversaire wér. démb de def na uh, open press bu neex ndaaya. ah waaw def na open press bu neex parce que nag en noonu lañ ko daan defee daal uh-huh. waaw combat bu ñu daan am noonu lañ ko daan defee bon combat suba bi nag ah ñoo ngi ñaan yàlla daal. lépp li ci war daal ñu yàlla may ñu mbir ak tan ak tal waaw ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla defal ñu lu gën waaw. li gën mooy ngeen am ndam. li gën mooy ñu am ndam. est-ce ndam li dina yomb. a ah, en tout cas lépp daal ñu ngi ko teg ci loxo yàlla. parce que daal li ci war moom def nañ ko nit ki moom boo sababloo ba pare dangay bàyyi nag yàlla àggale. xam nga Franc bu baax yow. Ah. mais man du affaire xam ak bañ a xam l'essentiel moom la ma xam dana ko def man it la ma xam ma def ko rek. waaw mais nag maa ngi ñaan yàlla daal ndam la fari ci sama côté incha allahu rabbi waaw. kon daal su suba yaa ngi jox waa ñëpp rendez fii ci arène bi. waaw incha maa ngi woo ñëpp daal ñu ñëw comme niñ ko doon defee ñu defee ko ànd ak discipline ànd ak fair play waaw loolu daal laa leen di ñaan waaw li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. waaw kontaan ci yow. jërëjëf. maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Babacar. yaa ngi am jàmm. ñu sant bu baax. naa làmb yàgg na bëri ay coow mais bii da ce ëppati mooy Franc Tyson 2 Mama Lamine Garga 2 ba nga doon dégg sax message du am du am du am du am te daa mel ni li ñu doon wax ñi ko doon wax am na ci loo xam ne ni leeru leen daa mel ni ah wala. waa dëgg la xam nga Babacar làmb moom am na coow mais amul problème ndax lépp loo fi gis situation boo mës a gis rek boo famille làmb jógee rek dañ koy régler. moo tax euh, nit ñi war nañoo mën di teey balaa ñuy def yenn annonce yi tey euh, lamb yi ñu wax dina am ak du am yàlla def na day am parce que ñu ngi ko nii ñu ngi nii régulariser nañ ko li ci war yëpp def nañ ko ñu ngi xaar suba incha allah muy bés bu rafet bi xale yi ñëw euh, bëre bëre bu neex te lamb ju fees del di ñaanal nag Equivox parce que ñoom li ñu def dafa jafe tey. fekk làmb fi mu toll nga ñëw xale xale yoo xam ne dañu désespéré woon nga ñëw ñoom ñëpp kenn ku ne nga jox ko combat alors ñun dañ doon ñaanal Equivox pour que mu réussir ay journée ngir taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko pour la promotion de la lutte sénégalaise kon Equivox ñu ngi leen di ñaanal yàlla ja euh, ñu am xéewal euh, àndandoo liggéey pour pour la réussite de la lutte lii ñu def nii euh, mun naa ne cat la rek. waaw parce que euh, mais yàqul seen programme parce que tey soo ñëwee suba ci làmb ji di nga xam ni benn combat bu yàqu yàqul dara te léeg day mel ni luy yàqu fekk luy defar la parce que soo jëlaatee euh, Mama Lamine ak Garga dugal ko au moins dans le mois d'août wala vers octobre da ngay amaat beneen grand komba kon yaakaar nañu ni yàlla dinañ ñu jàppale pour que ñun ñi nga xam ni ñooy manager yi ñi nga xam ni ñooy mbër yi ñi nga xam ni ñooy CNG. su amul promo promoteur kon ñoom du ñu liggéey kon nag ñaanal promoteur yi ñu gën a yokk am doole pour liggéey pour la réussite de la lutte. fàllu bële mooy fàllu bu leeral fàllu bu jàmm gën kii mooy fàllu Ndiaye li ma wax sànq rek laay waxaat ci mooma ah. nit la koo xam ne man boo du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma ko waaye dama ko xam ci wax am franc parler wax li mu xam waxit li nga xam ne nii moom lay def macha allah loolu moom yàlla dimbali na la ci combat bi bëri noonu na coow ci day yàqu dootul am dootul am nga bokk ci tey personne yu nga xam ne bu ci problème amoon bokk nga ci ñu sauver problème boobu ba làmb ji di am incha allahu rabi suba. Babacar dañuy alhamdulilah rek di sant yàlla bu baax di sant tamit suñuy waajur bu baax a baax di sant tamit famille làmb yëpp ndax tey comme li nga ko waxee rek <clears throat> ñun tey dañuy ambassadeur lañ ci làmb tey bu fekkee dafa am euh, xaar-xanam boobu moom la wone chaque jour bu ñu gisee ne mbir war naa am ñu gis ne yàqu-yàqu am na ca seeni borom woo ñu waxtaan ci ak ñun muy suñu grand sec di nit ku baax yaakaar naa li am li yëpp du dara lu ñàkk maîtriser làmb xamu ci amul expérience bi loolu kese moo indi doon tey jafe-jafe yam yëpp mais yàlla dogal na bi ñu contacté démb ci suba waxtaan ceeg ñun lépp lu ci war fexe nañ ànd ak ñoom dem CNG comme niñ ko ñëwee waxtaan waxtaan ak ñëpp li nga xam ne war nañoo wax ak ñoom fexe ba dag dagg yi ci amoon yëpp ñu rattrapé ko fexe ba ñu régulariser ko kon yaakaar naa li am solo mooy régulariser nañ ko làmb ji dina am suba yéen yi nag am na ci yoo xam ne la mm. <clears throat> te détails yi daf ñuy tardeel ndax actuellement fi làmb ji toll mm-hmm. li ñu war a concentré wu mooy fexe ba làmb ji organisation bi jaar yoon mm-hmm. ñu fexe ba jàppale ko ba nga xam te ne nii lim ci dugaloon même mënut a jot ci lépp dina jot parce que li ci ëpp mm-hmm. loolu daal moo tax a jóg te yaakaar naa mooy suñu rôle ci làmb te it ñun ku ñu dégg ñuy wax ci làmb ci yu mel nii rek la ñu war xaar su yu mel ni amee ñu jog sol suñu dàll xool na la ñuy def ba situation yëpp mën a décanté wu lépp mën a régler làmb mën a am ci jàmm ndax intérêt làmb moo tax a jóg du pas intérêt personnel nu ñuy def ba làmb di gën a dem ci kanam dañuy def ba làmb gën a suqaliku rek Babacar ci la ñuy dox mu mel ni loolu nga wax am na solo mais kon xam na ne bu ñu tëggee suba samedi dimanche yaa fi woote waat ci arène nationale diggante ki nga euh, euh, Belende. Mhm. muy drapeau xew-xew làmb di ay jeunes yu ambitieux ni koy waxee di ay jeunes xam ne ay jàmbaar lañ di làmb solo soo ko dee dem ci ay combat yoo xam ne ni Boka ku xam ne moom ku ne xam li simple bi champion yi xam ne ni war nañ fee teew tey war nañ rabbi baax dimanche nag moom di nga gis leneen ci làmb nag. waaw dimanche boo ko waxee dama koy gëm. dimanche nag moom ak dimanche nag moom xam naa ay foo toll di nga ne cey waaju lu xanaa jinne la non mais lamb noonu la expérience la te it il faut ñu koy partager bu ñu gisee suñu ay mbokk ñëw gis na seen expérience des na war nañu leen jàppale ndax tey lamb dimanche bi Babacar dina wuuteeg lamb yu bari Babacar ci fi am ci qualité mbëri la ak liggéey bu rëy bi nga xam ne Matane liggéey na ko ci ñu ko ci te loolu dafa am solo lamb dañ ciy liggéey. ànd ci équipe boo xam ni équipe bu am solo lay nekk mooy Mooru Parcelles ñoom am di Moustapha mel ni Khadim Ndiaye ñoom Moustapha Mbeng vraiment Cheikh Mbeng Fallou El Capo siraat liggéey liggéey bu am solo xam nga ñun suñu staff yoo xam nga dem nañ Gambie staff Ndiaye ci laa bokk di waaw Babacar ci la bokk Lamine Li TV ñoom pël waa pël mooy pël mooy baton bi <laughs> su ma ko tuddul Ibrahima <laughs> c'est-à-dire ñooñu ñooy staff bi c'est-à-dire production mën nañ ne bokk na ci staff gën a sécuriser ci làmb ji ndax ay nit la yoo xam te ne ñu ambissé la ñëw pour jàppale Ndiaye production rek te yàlla tax ñooñu nag Babacar ñu sant leen gërëm di wax ne Babacar dimanche yomb de suba yomb waaye dimanche du yomb de. <laughs> ci mbër yi parce que dama naan Mama Lamine bu sañoon day bëre Garga 2 bu day bëre ndax ñoom ñëpp pare woon nañ pour bëre mais lu mel ni arrivé ci làmb coow li bëri ci euh, no no maanaam noo gisee coow lu mel ni Saliou Ba. waaw Babacar maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu Equivox yëpp di wax ne yàlla na yàlla lafal cat. nañ sant yàlla te ku nekk yéen sa borom jàmm ndax ki tëgg làmba moo wax ne jour tel samedi tel lay tëgg sama làmb mhm. su dul am moom mooy wax ne du am. nañ gëmante yàlla te te ku nekk yéene sa morom jàmm xanaa xamoo ñaan lu ji sax euh, baax la ci ñun rek mais nit soo yéene sa moroom jàmm jaru sax ngay ñaan mais soo yéenewul jàmm soo yéenewul ñun ñi jàmm doo am jàmm waaw te ñu ngi wax ne suba di nga gis combat bu doy waar mhm. ñeneen Franc moo ëpp doole waaye dàqu la bëri nga gis combat bu doy waar ñaari mbër yoo xamante ni équipe nationale lañ jóge ah, plusieurs fois ñu jël champion d'Afrique ñaari mbër yu dem fi nga xamante ni mooy drapeau chef de l'État ñaari mbër yoo xamante ñaari mbër yu mën a bëre ñaari mbër yoo xamante ni ku ci nekk gox ba nga nekk dañ laa yaakaar muy diggante Franc ak Tyson 2 Tyson 2 nag doole daanu ko hmm. waaw doole daanu ko ndax nit bu la ëppee doole nga mën a bëri rek mën a bëri rek doole la mën a bëri rek doole la waaye Franc kenn xamul lu mu tëlee Babacar mu nekk combat boo xamante ni combat yëpp yu ndaw yi su amul woon rek combat bu doy na. combat boobu rek doy na ndax di nga gis bëri di nga gis xeex. Mhm. ndax ku ci nekk tey Franc bëtam yëpp fi mu ko teg mooy ci ñoom Modou fi ñu nekk. tey Tyson ki nga xamante ni moom mooy Tyson 2 xelam yëpp mi ngi ko def fi Eumeu seen nekk su Eumeu Sène demee moom fay toog xale yi ci ginnaam ñu ngi topp ci am mais nee na kenn du ma ci dab te combat bi moo koy may pour mu dem ci kaw pour xale duñ ko dab waaye xale bii nga xam ne mooy xale parcelle di Franc kenn xamul lu mu tële démb suba nag moom. combat yërëm tool ndax ndaanaan day daanu. suba suba combat combat bu day war Babacar. ndaanaan dina daanu ndaanaan mooy daanu. <laughs> jaalewaat waa leeral seen con suñu confrère yooyu décédé woon ci accident bi yow itam ngay do ngay liggéey ci làmb lu am solo macha allah dégg nga coow li tey mu jaral la nga ñëw euh, arène national lii noo ko dundee en tant que kuy liggéey ci làmb reporter. Babacar lu ma ko dundee mooy nañu yéenante jàmm. nit ñi yéenante jàmm baax. nit ñi nañu te jàmm looloo baax. nit ñi bu ñu nekkee ci benn gox wala ñu nekk ci benn dëkk uh-huh. di liggéeyandoo di xàccandoo di doorandoo uh-huh. dañuy yéenante jàmm da ba pare ñuy soog a ànd gis nga làmb ji uh-huh. kenn mënu koo yàq du suñu borom donc ndax borom ki tëgg làmb ji la mu war a def def na ko mbëri la ñu war a def def nañ ko diggante Maama Lamine Garga 2 nag euh, nekkoon na làmb joo xam ne ni Sénégal yëpp bëgg nañ ko bëggoon dañ ko doon xaar waaye tamit jaam pexem yàlla ak dogalam. Garga pare na ànd ak mbokkam maam Lamine pare na ànd ak mbokkam xëy na tamit eh, ndogal dal na ci maama Lamine dañ ko sante yàlla sunu borom waaye teewul ne làmb ji day am mhm. nañu xam ne suba làmb ji daal ñàkk fee ñëw wóorul ñàkk fee ñëw ku bëgg gis làmb ku bëgg a gis lamb rek suba ñëwal Babacar daal coow li coow li làmb ji dina am suba si kàttanu yàlla. leer na leer na nañu te jàmm dong. kii mooy Fallou bu leer waaw mais maa ngi tamit maa ngi nuyu tamit Fallou Ndiaye. waaw moom suma xarit la. kooku waxu kooku waxuma sax nuyu kooku dañ des kooku dañ koy jaajëfal. li may wax nii xule dama bëgg nga jël ko Fallou Ndiaye maanaam loo xam ne nii tey doon na galgal làmb ji pour mu am Fallou Ndiaye fexe bokk bokk na ci personnes yi làqar ci galgal boobu. xam nga lan mooy lan mooy problème kay wax Fallou Ndiaye Ndiaye production. xam nga lan mooy problème mu Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye ñi dafa dafa bëgg nit ñëpp nekk ca kaw moom mu nekk suuf. Fallou Ndiaye dafa yéene ñëpp jàmm moo tax lu mu métti métti métti métti bu dara amee rek day ñëw assister. Ah. xool nu mu siy jàppee. lii de bokk na ci ñi bu ci li ci bu doon jafe-jafe am na ci. Mm-hmm. ci ah, te amoon na ci maanaam ci ay. fexe nu nu yee làmb ji di yàqoo mhm. loolu moom am na ci dund nañ ko mhm. xëy na nag su deesut wax lépp waaye moom Fallou njaay moom sol naw dàllam fexe ba loolu bu dee côté bu mu ci mën a doone fexe bokk na ci ñi ko làqar ci Fallou Ndiaye kenn du moom dañuy ñaanal Mama Lamine sunu borom may ko wér gargade tamit sunu borom defal ko jàmm ñu xool daal ban bis la ñuy jàpp làmb jooju xaw ma fu ñu koy yóbbu waaye làmb jooju dina metti dina neex dina ay jooju làmb tey boobu làmb Babacar oh ku ne xam na ne suba fii arène nationale Equivox wala Vox Arena ñoo fi wax Tyson 2 franc maam Lamine Garga 2 yàlla dogal Mama Lamine ak Garga 2 moom bokkatuñu parce que li tax mooy Mama Lamine moo am blessure waaye Mame Less fi may ñëw ak yow mooy ci combat euh, Tyson euh, Garga 2 ak Mama Lamine amatul loo ko noo ko dundee. Euh, salaamaaleykum waa Equivox maa ngi leen di nuyu du nuyu kullukum koo xam ne ci làmb ngay bëggee di leen ziar ci coono bi aussi di leen masawu dem ngeen fu ne surtout yow Babacar yaa ak Alaaji alaaji moom booy buy dawal rek dañ koy jox oto bi euh, di nuyu aussi Cheikh Omar ñi ngi dégganteeg moom saa su ne euh, combat Mama Lamine Garga 2 moo jaayoon bis bi combat Garga 2 Mama Lamine moo jaayoon bis bi parce que ñaari attaquant yi wala dajale te Mama Lamine buy dóor day xool li muy dóor day xeex mais ni ma ko gisee moom dama ko doon ñaan rek ci jouru combat bi comme yàlla baax na ba mu am tolof tolof heure buy bëre Garga na ko jox cër Babacar buy gëre garga de na ko jox cër. xam naa beneen yoon la ñuy bëree léegi ma ñëw ci caatu ngéwél ak alias biram euh, caatu ngéwél xam nga saay-saay la foo ko natt ci caaji rek mu ngéwél ci biir parce que gis nga fii dernier moment ni mu defoon ci arène nationale bi moo fils de Zallo alias biram ne ko man xale bu nekk ci yoon laa donc diggante caat yaram bi yëpp day bëre ba ci suuf caatu ngéwél yaram bi ci kaw ba ci suuf ba ci weewu tànk bi day bëre loolu na ci alias biram bàyyi xel waaw Baye Mandione Junior Fourière. Fourière euh, dafa jóge ci pant parce que Fourière boo xoolee bébé jéen ko daan fii ci arène bàyyi ma Mandione gis nga fa jóge ci victoire corona bi tënkoon ko tey mu ñëw war a wane boppam te magama ko indi bisu suba bi bisam la. kon daal suba arène national dina neex. non waaye Vox Arena dañoo feebar xanaa lii bi yi moo jaay bisam G5 lañ wax waaw xam nga kenn ci wàññi ñu def G4. mais nañ xool yi ndaw yi ci suuf Babacar yu ndaw yi ci suuf bu subaa di nga seetaan bëre seetaan làmb. Ah, Alioune Badara maa ngi lay ziar. delloo ziar Babacar. yaay directeur Vox Arena Vox Arena di label bi tëgg ay làmb coow li bëri ci seen làmb fan yii du am le 19 du am du am du am du am loo ci mën a leeral tey waa Sénégal. Babacar di nuyu di sant. Euh, le fait nga ñëw fekk ñu fii ci arène nationale bi pour ñu leeral loolu effectivement question bi am na solo lamb ji dina am incha allah bu neexee yàlla suba samedi le 19 juin 2021 euh, ñu ngi nuyu nag waa axlu lamb yëpp di ziar ñëpp coow li bëri na ci waaye dëgg la lamb moog coow ñoo ànd comme niñ koy faral di waxee lii ci am rek mooy euh, li ñuy regretter rek bon mooy blessure bi nga xam ne Mama Lamine def na ko euh, te ñu jot ko mu nekk information boo xam dafa ñëw au dernier moment donc loolu daal ñuy xaw na métti quand ci organisateur bu nekk. mais aussi moom tam ñu ngi koy masawu parce que xam naa ne yéene moo nekkoon bëre Garga 2 aussi bi nga xam ne préparé na son na ci combat am donc lii moom mbiri suñu borom la kenn mënu ci dara mais lamb ji incha allah bu neexee yàlla suba dina am ci samedi ji galaa bi dañ koy maintenir dina am donc euh, loolu daal laa mënoon a leeral ci li nga xam ne ni mooy euh, lamb ji. galaa bi mooy Franc Tyson 2. <laughs> galaa bi mooy waaw Franc Tyson 2 euh, alliance biram caatu ngéwél Fourière ak Baye Mañon numéro 2. xale yi ci suuf xale yi ci suuf yi ci topp léegi pour affaire yi bi aussi euh, donc dañ koy mentenir drapeau El Hadj Papa léegi fi ñu toll nii co parrainage lay doon waaw dinañ sargal docteur Macoumba Diouf sargal El Hadj donc ñoom ñaar ñooy doon parrain yi grand combat bi loolu daal lañ ko fas yéene doxalee incha allah on maintenir on maintient la fête donc dina nekk fête lamb donc ñaare parrain yëpp ñëw ñu def ko daal ci ni mu gën a rafetee waaw. kon daal suba arène nationale fii ku yebu xaar lu neex. waaw ku yebu xaar lu neex incha allah loolu daal mooy information bi suba daal macha allah dinañ fi def fet bu neex gala bu neex comme niñ ko niñ ko prévoir woon jërëjëf ka national defe naa kon daal wax ji leer na. incha allahu rabbi ñu ngi doon wax waxu fomb ak lii du am nangam nangam làmb ji day am suba Franc Tyson 2 fii la ñuy bëree caatu ngéwél alias biram Baye Mandione Junior Fourière ak yeneen xale yi nga xam ne bokk nañ ci bés boobu ki ci génn rek mooy Mama Lamine ak Garga 2 li ko waral mooy Mama Lamine moo blessé te sport moo tëddee noonu ah cas de force day am si mbër day am si ku nekk di nga préparé wu sa kër sax da ngay solo ba war a génn dem fenn faqastalu gaañu fomb sax dem wala nga jóg ba war a dem yàlla ñëw jël sa bakkan te looloo gën a garaaw lépp gis nañ ko ba tàyyi loolu du fi jóg àddina moo tëddee noonu kon Mama yàlla na nga ak jàmm. garga de itam yàlla na nekk si jàmmam continuer Sénégal yëpp am jàmm ñuy xool après kañ la ñuy tëgg combat bi ndax combat boobu waa axlu làmba ko soxla waaye lii jaraleeral a leeral mooy drapeau docteur Macoumba Diouf suba moom moo doon combat bu mag bi muy Tyson 2 ak gar ak Franc loolu. dana am suba incha allah rek ak la ca aju du tere pas alaj papa jëng tamit dana ñëw ak délégation ndax moom lañ tuddee woon maamalamin ak ki nga xam ne nii moom mooy Garga 2 kon alaj papa jëng suba dana ñëw moom tamit ñu delloo ko njukkal yëkkati drapeau loolu du mën a ñàkk parce que lim ci waroon def moom tamit taxawe na ko ci ci communication ak lépp kon defe naa daal Vox Arena jërë ngeen jëf waaye tamit di jaajëfal fallu Ndiaye. moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax du ma di ko wax ndax wax dëgg yàlla bëri woon na loo xam ne nii amoon na ci ci ay gàllankoor ci làmb ji bëri na lum ci làqar ci kon Fallou Ndiaye tamit di ab promoteur seetaanul nawle promoteur am bëgg lu ko gàccee te bu ko neexoon mu ut gàcceem bu ko neexoon mu bokk ci li koy yàq moom fàllu Ndiaye mais heureusement defut loolu xam na ne nawleem la mu jàppale ko te yàlla tax pour li mu jàpp na xamagu ko mu xamal ko ko pour pakk yi mu mën ko jàll loolu lépp. fàllu def na ko kon fallu jaaraama lañ lay wax di jërëjëfal bës tamit Ibrahima Faye bu Lutte TV parce que moom tamit li may wax rek làmb ko ñor tout le temps ci luy doxal làmb lay dox moom tamit bokk na ci kon axlu làmb yëpp ñu ngi leen di jërëjëfal di jërëjëfal ku mu mën a doon ku ci jàpp rek pour bés bi réussir yàlla na la yàlla fay keneen ku ci amoon beneen intention bu dul loolu tamit bu baaxul tamit xëy na dañ naan sa xel a toll noonu mais àddina moom yàlla pare na démb tey soog a ñëw te xulle li ma war a lekk tey nga war ko lekk yàlla daf nu koy jox te bu nu koy jox téye ko day xaw a jafe waaye di wax waa Vox naa rek di leen wax ne première expérience moo demee nii faw mu am loo ci jàngat pour ëllëg nga xam fi ngay teg sa ay tànk wala nga gën ko xam di wax que ne gars yi rendez-vous bi suba la arène nationale la Franc Tyson 2 comme ni ngeen ko xamee Eumeu Sène ëmb na Franc Tyson 2 démb mu def open press am ca mook soq ak ñoom Pape Sarr waa Pikine kon ñooñu pare nañ Modou Lo bërki démb ëmb na ki nga xam ne nii moom moo di euh, Franc mu def euh, open press am ca Parcelles Assainies mook ñoom Papa Sow kon defe naa kon suba combat bu am enjeu mooy am fii amateuru làmb yi di leen wax ne na seen xel dal suba incha allahu rabbi Vox Arena dina tëgg làmb ji buñ ci jógee ñu waajal Maama Lamine Garga de xool fu ñu koy def ci André Iba Mar Diop wala arène nationale mais loo ci mën a dégg daal hélas boo bëggee dégg-dégg nañu fóot xol yi dama ko waxoon dem nañ ko waxaat nañu fóot xol yi tàppe ko na ko dabaax doon waxe maanaam ànd te yàlla tax di waxante dëgg koo war a dimbali nga dimbali ko te yàlla tax la ca des ñu bañ caa dugg ndax yooyu day indi ay yàqu-yàqu day tax nit ki xam sa jikko te yooyu amul benn njariñ maanaam rafet jikko rek mooy li am solo waaye daal Vox Arena a ngeen jëf yal na lépp mat ak jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw suba Fallou Ndiaye ñëw ci comme ni ngeen ko xamee. benn combat boo xam ne fii lay amee ci arène nationale war a dox ci diggante Bébé Birahim ak ki nga xam ne nii moom mooy euh, xale ba la nekk fële nu mu tuddati euh, tur ba réer na ma de xulle ndax damaa xaw a sonn mais nag bon Fallou Ndiaye daal moo fi ñëw dimanche hélas di la wax jërëjëf mais xulle di la wax jërëjëf Habib groupe Equivox TV yëpp mais di jaajaa jaaramal tamit ñi nga xam ne daal jàpp nañ ci di leen jox dig daje rek suba incha allah rabbi